te li ci mooy li jëm ci wàllu ndox kon loolu itam xam naa buñ ci duggee daañu wax fi ñu ci toll ak jiwu yi jërëf kon ñu ngi leen ci ñaan baax ñu gën ci góorgóorlu la ci des mooy wàllu assainissement bi xam ne dëkk bi xam nañ liñ ci jànkuwanteel te màggat gërëm nekk ci digg nawet bi loolu itam yéen da ngeen leeral fañ ci toll ba ca des it mooy wàllu courant courant bi itam xam ngeen ne Touba ni muy di ko ndax. ay 2003 2004 Touba mi ngi tolloon ci méga méga weer méga la te te la tolloon fii may wax ak yéen nii dem na ba àgg ci 100 mégawatt kon dëkk bu ñu màggee noonu bu ngeen gisee ci jamono yi ëpp Diouf ak président Abdoulaye daa ngi def at mu jot ñu maye courant bu bari ci dëkk bi mu jug am daa daane def at mu jot. ñaari at yu mu jumt ak mu ma cinquante kilomètres lañ joxe ak mu ma deux mille ñu joxe cent kilomètres cent kilomètres yooyu itam dañ ko daan tas ci quartier yi dëkk bi ndax xam ngeen Tuubaa li mu bindoo amul benn quartier booy dem ña fay dëkk benn kilifa ko sanc sanc ay teen jox ko ay teen bi booy daal mooy dëkk boo xam ne Sëñ Tuubaa joxewul ndigal mu ne woon ci bitti Tuubaa Tuubaa ba mëdd ko la war a agsi Tuubaa agsi fa kilifa boobu ñaan ko am noonu lañ ko daa séddale ci biir kër yi yàlla def nag 2012 bi président Macky Sall ñëwee ci nguur bi ministère ba yoroon industrie bi mu xoolee kayit yi xamul nu mu demee ndax nguur bi yees loolu toujours baaxoo na ci am bi mu xoolee kër yi ñu tur Daaru Xudoos tur Daaru Minam tur Daaru Muxti tur Daaru Salaam tur ko Mamour Diarra tur ko Cheikh Ibrahima xamul nu demee mu ne man xaw ma CORA buy jëm ci ay kër kilifa li ma xam mooy CORA bu jëm ci population wax ko ci conseil du ministre yàlla def kumpa am ca loolaa waral excitation yi ñu ngi koy def sax ci benn excitation bu jaar ci kilifa dañuy def def ko ci dëkk bi ñu ñi ci dëkk bi sax duñ ci xam dara loolu sax damaa bëgg mu leeral ndax kilifa yëpp dañuy ñëw ci man di ko sàkk bu ma ko mosaan sàkk fii dama ko waxaat bu ñu demee ci càll duñ ko def te duñ xam ñu demee loolu daa ma leeral assainissement bi itam bu ngeen masee dégg ma wax ci loolu kon weesuwuma ci xawma ci lu weesoo defar nañ seen plan ba noppi ne ma fii lañ ko def xawma ci lu weesu loolu man mii di wax ak sama kër gis nañ daal assainissement ak ciw kon noonu la loolu tam day mas a leeral ndax nit ñi xam ne dem bu courant boo xam ne joxeetuñ bu ma sax ci mujj waaye bañ ko daa joxee ñii la daa ndax kilifa bu ne taalibi bu ne taalibi amul accès ci maa dem ci nguur leen ñaan pour ak seen kër ku ci ne sa kilifa ngay dem seen kilifa yooyu itam ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa dañu waaye kooku jox ma kàddu ma war ko liggéey tam noonu rek la demee waaye moom li ci am solo rek mooy loolu moom seen warte la boo xam ne euh, ko wax loolu yëfi état yëfi Tuubaa ndax Tuubaa moom yaakaar naa lañ war a def lépp ñu ngi def ndax Tuubaa képp ngay dikk di dugg ci dëkk ba fekk ab hôpital ñun la day appel nga gis éclairage public ñun la day appel nga gis ay poste ñun la ab day appel nga gis ay tëli ñun la ab day appel nga gis ay résidence ñun la ab day appel kon murid bi moom nangoo liggéey jàpp naa ci ñun la tam kon nag màggal gi moom borom def na ko lool ñun nag li ngeen ci war a xam ne ni yéen a ngi ci kon ñu ngi dugg fi ñu ci toll sëñ Ousmane ñoo ko sëñ Diakhi ñu bëri ko leeral ak service yi fi teew waaye xam ngeen ne loo xam ne Serigne Touba ba mu ko njëkk rek génnatoo biir këram waaye daal di na it ne màggal gi daa dem ba àgg foo xam ne ku dul man mi ko woote ak yàlla suñu boom bu bind nit ñi doo xam la fay teew ci mbooloo mu toll xayma bi nga xam waa université ba ndax Moubarak Lo moo njëkk def xayma 2011 moo jur sax màggal ji tey ñu def ko fête indépendance ba ñu defee xayma ba la ko daa wax naan màggal Touba ndax nit ñi duñ liggéey ba ñu defee étude bi nag ci lañ xam ne màggal gi day yëkkati économie bi keroog bañ ko wax président Abdoulaye Wade man Moubarak Lo maître Madické ñoo fekk jotaay ma ñu bëgg a julli ji àjjuma ba ko Mbarou waxee ne ko màggal gi dañu ko war a defee en la Dóor loolu mënta ne te ndax Sénégal confréries yi dafay bari mënoo defal Touba bàyyi fa des boo ko defee di indi coow mën na ko bokkul man mii di wax yow bokkuma Touba Koki la dëkk bu fekkoon damay défendre Koki laa laa défendre waaye Touba dafa tëlluwute fër wax joojee nag moo ñu topp ma dëgg ne mooy bëgg jàppe Touba dëkk boo xam ne dëkkub sëriñ la màggal Touba ñu xool. lu tuuti ñu def ko fa bu jàllee ba déwénati Touba tollatu foofu ndax dëkk boo xam ne dem nañ ba da na gën a daaw bi ñuy def étude yi dañoo wax ne Touba mooy ñaareel dëkk bi gën a Sénégal ba fa biñ mi def recensement bi ñuy ànd ak waa commune bi ak waa Touba ci kanam ak mbooloo mu bari bañ dikkee ba rek recensement bi ngeen di def dafa baaxut bu fekkee baaxul nag ñun danañ jël suñu responsabilité defal suñu bopp recensement. ndax comme état buy natt day xool ñu dëkk ci dëkk ba gis na ne Touba wóor na ne li ci dëkk mën na ñaari million yàlla def ñoom ñu def recensement bi gën nañ ci ay yóbbu itam ba wax ne Touba léegi tey mooy dëkk commune bi yëpp ci Sénégal doonte la nag fa àgg lépp ñu bari bindoo waaye baax na ba tey ndax lu ci mën a xew étude bi nga xam ne université Bambey def na ko daaw muy itit bu boo xam ne ko dem bëgg gis kayit bi danga ko gis fu wóor la tege bi ñu xoolee daaw màggal bi dépassé yi jëm ci biir kër yi rek dem na 74 milliards dépassé yi jëm ci kër yi dem na 74 milliards bu ñu xoolee xar yi ak nag yeeg ganaar yi dem na 33 milliards bu néewee bu néew kon loolu bu ñu xoolee budget total bi yëpp ñi defaraat kër yeeg. li xaalis bi jógee bitim réew am na ci génn kër bu yónnee xaalis boo xam wax na ma ca làmb ñoom ne ma ñetti fan màggal bi 3 milliards ci biir dëkk bi jaar ci moom benn kër banque xam ngeen ne boo fa dem day am jafe-jafe kon màggal Tuubaa li muy dugg ci ñoom ci seen xel na yi gën a néew weesu na 240 milliards kon 240 milliards yooyu képp jàpp naa ne xanaa ñaari at wala ñetti at képp bu ñu ko defoon war naa may defal dëkk bi te dëkk bi ko xam ko ne xam ne Touba nag duñ jàmbat ndax hmm. loolu Serigne Touba dañu koo tere képp ku fi nekk jiite réew mi boo defee lu baax dañ koy sant bu fekkente ne lañ séntu mot itam du tax ñu xaram la loolu moom Serigne Touba dañu ko tere na soxtu bi shukri shikayatan waaye bu ngeen di xool ci li weesu lépp ñoo ñëpp jàmbaar lañ leen sant nañ leen bu baax a ndax teraanga kenn du ko xeeb waaye bu ñu xoolee Touba dayoo bi fi mu àgg xam ngeen dëkk bi kenn kaar bi sax kaaru dëkk bi sax dafa koy tëri assainissement bi itam xam ngeen daanaka dëkk bi baatum suñu tool waaye xaw naa yàqu daanaka ndax boo demee ba kër yi wër jumaa yi fee ñu def na cérémonie officielle fa ñu teg baax ba daanaka lu jege téeméer million ña ko ci bëgg a ñàkk ngir mën fàttali baax bi kon xam ngeen ne loolu bu mu ci jublu dëkk bi dañ di yàqu loolu nag responsabilité du Serigne Touba rek loolu état ko kon loolu itam nañ ko gëstu te saytu ko te xam ne ndox mi li muy baax baax baax réussiwul baax moo ko gën ndax 38 forages wala 37 xam ngeen xëyu ci Touba ndax capital région yëpp boo xool ay fukki forage fukki forage yi ñaar wësu te seen ndox ma yëngu kon Touba réseau bi dafa yàqu am na ci foo xam ne ñu ko gas wax ne boo ko laalee mu nga ko boo demee tey question bi ndox maa nga ci biir nga dem ko sëñ bi daal ndox maa nga ci biir armeel ya yu bari yàqu nañ ndax ndox bu bari boo demee que suñ saa ndox maa nga ci biir suñ Cheikh daaw tawax muy furoon def lu leen lañ def daaw jëm ngir mën ko faa tawax boo demee fépp ba ci péncum daal xoos comme ndox mi mi ngi bëgg yàq dëkk bi loolu mooy sax li gën a jëm mooy assainissement bi ak réseau bi kon loolu ñu nekk ko fàtte ndax màggat yi day loo xam ne mooy ndax ginnaaw jaamu yàlla gi ci Serigne Touba santaane wax la mu ci deene waxoon ko Cheikh Mouhamadou Moustapha ne ko bu ñu demee ba ëllëg àjjana amatu bis waaye ci kàttanu yàlla yàlla mi nga xam ne bi moo bindoon adduna képp ku daa sonn ci sama bis bii da nga gis teraanga yu doon ko ci yow yoo da xam bis bi kon màggal gi jàmm bu amee ci senegal dëgg dëgg dëgg kenn tudd fi wàllu xeet Sénégal gépp nekk benn màggal bi bokk na ci suñu li ci woon loolu wax ndax étude bi wane na ne cinquante six pour cent yi ci ñi màggal ay wolof la vingt deux pour cent yi ay séeréer la onze pour cent yi ay alpulaar cinq pour cent yi ay pël lañ trois pour cent yi ay joolaa lañ un pour cent bi jeex mooy yeneen xeet bi ñu xoolee màggal gi itam wax nañ ne quinze pour cent yi doonuñu ay taalibe Sëriñ Tuubaa seen mbokku jullit dañ ñëw ànd ak ñoom màggal 1 pour cent yi nekkuñ sax ay jullit fa kon loolu liy gën a dëgëral lii gën a dëgëral bennoo Sénégal màggal Tuubaa yi suy li ci woon bëri na kon nag ñaar ñu ñu nga xam ne yéen a ko taxaw ba lu ngeen ci daanaka rek mu gën a yomb ci yéen ndax xam nañu tolluwaayu réew yi fi mu toll moo tax am na ci soññoo yu am sax bu jël àgg ci ndax seen bu nit bu fekkente ne xam na jàngoroom xam na ko ci wax foofa lu lañ ci yore yi asalaamaaleykum wa rahmatulah